balla sant nanu la jërëjëf den borom Tuuba Mbàkke sant nanu la borom Tuuba yaa gaba Mbàkke balla sant nanu la jërëjëf den borom Tuuba Mbàkke sant nanu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim wa inni auzuha bika wa zuriyataha min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yahdurun ginnaaw ba nu sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi dellu di yeesal sunu yaakaar ak sunu njébbal ci cheikhuna ahmadul xadim di ñaanal bu baax cheikh muhammadul muntaka sunu borom dolli ko fee yàggal dolli ko wér ba lim yéene liggéeyal sëriñ Touba mu defe ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak moom ak mboolem njabatug sëriñ yëpp di ko ñaanal sëñ Amdi Moodu Mbenda mi nga xam ne moo fi toog jataay maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem kilifa yi nga xamante ni bii ñoo seq lislaam yëpp di ziare bu baax mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di bàyyi xel mboolem ci àddina sépp rek ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen yëgal ne seen mbokki jullit seen mbokki taalibe. muy waa daara xidmatul xadim Touba Kaolack ñoo am liggéey bu rëy boo xam ne dañ koo naal ngir liggéeyale ko lislaam ngir liggéeyale ko Serigne Touba muy daara joo xam ne dañu ko fas yéene jënd def ko ci turu Seexuna Ahmadul Xadim daara ji nag suñu borom dafa dogal ñu joxoon ko ñu doon fi nab nabi di fi góorgóorlu di fi jàngale di fi yar tu tànk ak di leen xamal ak di leen tarbiya ak di leen jàngal yàlla dogal biñ ñu koy jox nag mu nekkoon ci melokaan woo xam ne neexutoon xool suñ borom dogal ñu def ci ay liggéey yu am solo ba taaral barab bi ba ba mu neex a xool léegi nag ñu tàmbali woon ci ay sas yoo xam ne ci mbokki taalibe ni ci daara ji ci lañ ko tàmbalee waaye loolu ba tey daa xaw a ci ñoom ndax daara ji ay tuut tànk ñoo ci ëpp ba tax na sas yeeg ak lim bi nga xamante ni bii moom la borom kër gi di jaayee kër gi da ciy xaw a néew lool ndax ay millions yu bare bare la ko jaayee ndax loolu li ko waral mooy ci barab bi mu nekk site bi mu nekk dafa nekk site boo xam ne Touba Ndorong ne ci wetu kër Soxna Xadi Baara ñu bari dañ fee bëgg lu mel nii waaye lii moom ni ma ko waxee sànq rek Sëñ Touba rek moo ko yeyoo ba tax na nag ñu amaat beneen gis-gis buñ ci am mooy yaatal liggéey bi yaatal gi mooy ñu ubbi. ay woote yoo xam ne dañ koy woote ngir bokki taalibe yëpp jàpp ci ñu tàmbalee ko ci daara yi nga xamante ni bii ñoom lañ bokkal ne ci gox bi ndax liggéey bi seenub liggéey la ñu ànd ko ak ñoom ci dox bi ak wax jeeg lépp ñoo ko ànd ngir yaatal liggéey bi ngir dele bi nga xamante ni bii moom lañ joxanteeg borom kër gi bala ñu caa àgg lim bi mat moo tax nag ñu am ay li yeneen yaatal yoo xam ne def nañ ko ci muy levée levée du yoo xamante ni bi dañ ko cee def ngir mbokki talibé yépp man ci tabal seenu ñak copper Express bokku na ci e, barabu kay yi nga xamné dañ ci jaaré ngir mëna tabal sen seen àddiya mel ne ne foofu moom ay yaatal yu bare bare yo xamné def nañ ko ci ndax amna lien bo xamanteni biit inshallah képp ko xamné war nga ci jot dinañ ko yaatal ba kenn ku nekk jot jot ci man ci tabal sa addiya ndax kay la bo xamanteni bi levée du fonds daanaka moo ko tax a jóg ndax bokki taalibe yu bari bu ñuy def lu mel nii ci lañ koy yaatal ba kenn ku ci nekk mën cee tàbbal sa àddiya ndax jamono moo toll foo xam ne boo yore sa téléphone rek loo bëgg a def rek mën nga ko def ci saase man nga yor sa téléphone tàbbal ci sa àddiya ci saase te doo jóg fi nga toog kon woote bi daal ñu ngi ciy woo képp koo xam ne bëgg nga lu baax lu baax tax na laa jóg ñu ngi lay woo ci liggéey bi te xam ne liggéey Sëñ képp la ndax daara je daara Sëñ Tuubaa képp la te ligg duñ fi def leneen lu dul liggéeyal sëñ Touba kenn xalaatu fee dëkk kenn xalaatu fee def dara lu def ko barab boo xam ne liggéeyukaayu sëñ Touba la. te barab yu mel nii sëñ Mourtala li mu ko daan tuddee mooy kër yàlla boo nee kër sëñ Touba mooy la kër yàlla ndax liñ fi def mooy jàngale alxuraan yar jàng xasida ak euh, di def lu baax rek ci la ñuy nekk saa su nekk kon loolu mun a génn ci kër yàlla te Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ koy moom lañ koy liggéeyal moom fu mu masaa nekk lam fay njëkk a xalaat mooy kër yàlla muy jumaa joo xam ne da koy taxawal kon looloot génnut lii kon daal képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi lay woo ci liggéey bi. képp koo xam ne bëgg nga cee barkeelu mën nga koo jaaree ci ay plateforme yu ci mel ne Kopar Express waaye itam mën nga koo jaarale ci numéro yi nga xam ne moom la ñu joxe mu am Wave am Orange Money bokk na ci 76 341. 11 07 76 341 11 07 wala nga def 77 228 46 17 77 228 46 17 wala def 77 053 58 85 053 58 85 lolou rek moy ñetti numéro ngir levée de boobu noonu beneen numéro boo xam ne mbokku taalibe bi gisaat na ko bu wuteeg numéro yi nga xam ne moom la ñu joxe mën na cee bañ a dugal la nga xam ne moom mooy àddiyaam ndax du doon loo xam ne numéro bu daara ji joxe la. kon mbokki taalibe yi e, mbokki jullit yi rawatina mbokki waa diwaan Kaolack boo leen déggee kàddu jëwrin Serigne Mohamed Mbacke Serigne Mohamed Diouf di jëwrinu daara xidmatul xadim ngeen xamni euh cadeau yi rek doyon na ci ak leral ndax makan bi mu doon wax euh, te ñun ñepp ñu bokk ko muy makan bi dan euh, euh, def seenu liggey jaarale ko ci Serigne Touba lim ci wax nak ñun ñepp deg nañ ko muy lan ginnaw bi nga xamé ni yeesal nañ ko ba bërepp bi xemme mu amna ñeneen ño xamni yit jël nañ seen bët ko ci ndax laata muy melni laata ñu ci nekk kenn xalaatu ci woon a dëkk coono dem na ci koom-koom dem na ci ay xalaat dem na ci te loolu lépp sëñ Touba taxoon ñu doon ko def ñeneen ñooñu bañ gisee loolu yitte woowuñ waa daara ji moom ko dañ ko yitte woo ngir moomal ko seen bopp daara ji xam gi nga xam ni yitte ju nekk yitte sëñ Touba ca gën a far moo waral ñu jël seenu yitte joyal ko ci moomale ko sëriñ Touba moomel googu ñu koy moomale sëñ Touba nag weesuwul moom gi sëñ Touba moom université ba ca weesuwul moom gi sëñ Touba moom jumaa ji ca Touba weesuwul moom gi sëñ Touba moom péncum sëñ Basiiru mii gi kon bokk gi nga xam ne ñoo bokk mbooleem barab yooyu moomee boobee lan bokkeek jullit yëpp barab bii ba tax na tàll nañ ci sunuy loxo ñun ñëpp mbooleem jullit yëpp mbooleem taalibe yëpp mbooleem kuy dégg sunu kàddu te seen bu yitte doon joyal ko ci liggéeyal sëñ Touba ndax lii gisuñ ni dara gën na koo màgg ndax it euh, yitte ji mooy samp ko ba def fi ay sëti suñ yoo xam ni fu lislaam taxawee jooy ñoo ñuy saafara ko ndax moom moo ni woon may na ma dalub lislaamu sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu ba tax na euh, bu ci kenn xeeb lim yore bu ci kenn naw lim yore ndax ku ci indi woon ba indi lu ëpp njëgu kër gi it danañ la ko defal ci kër Sëñ Tuubaa ku ci indi woon ba indi loo xam ne mënta jarub kilo ciment yi dinañ ko def ci kër Sëñ Tuubaa kon mboolem mbokki taalibe yi xam leen ni euh, fonds boobu ñu génne leve fon boobu muy euh, euh, Kopar Express bu ko defee ñun ñëpp nañ ci dugg ku am ñaar fukk dugalal ku am junni dugalal ku am million dugalal kon nag ñu ngi cee xaar seen taxawaay rawatina nag mbokk yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa ci diwaanu Kaolack ñu ngi leen ci woo bàyyiwun benn kilifa buñ ci tuddee sëñ Babacar Mbacke tudd ci Baye sëriñ jóob tudd ci sëñ Moustapha Abbas matale mbooleem kilifa yi nga xam ni ñu ngi ci diwaanu Kaolack lii nag seenub liggéey la ndax amaana lu toll ni diwaanu Kaolack euh, kër goo xam ne mi ngi dund ci alquran ak xasida moomale ko sëñ Tuubaa sax yomb fi kon buñ ci amee occasion bu mel nii day mel ni kenn ku nekk li war a doon yitteem fii wak dale ba mooy sëñ Tuubaa moom kër gi balla sant nanu la jërëjëfate borom Tuuba Mbàkke sant nanu la borom Tuuba yaa Gaba Mbàkke balla sant nanu